Euh, boo ñu peut-être résumer sa parcours lan lay son parcours parcours football mon, <laughs> ans. non résumer Port ans Coupe d'Afrique j'ai équipe nationale j'ai tout gagné. Je mhm. jël ay phase nationale ay régional. Mhm. trophée Sénégal marqué. marqué trophée mooy Jaraaf Asec. Mhm. bi ñuy fekk Asec Côte d'Ivoire noonu may jàpp deux penalty ba moom moo nekk loo xam ne saa yi ma xëy day day ñëw sama bopp quoi. parce que bi ñuy dem dañ ne bu ñu demee foofu dañuy dóor score. Mhm. ñun Sénégal suñu mentalité chaque jour mooy gëmuñ suñu bopp bu ñuy dem si dëkku naar yi sax dañ naan ay eh boo leen demee. Mhm. tout récemment lañ dem euh, Maroc contre Raza ñu naan boo demee na leen di gagné ñu dem. am fa qualification ñibbi si man bi may dem foofu ASEC dañu woon boo leen demee dañ leen dóor score mhm. loolu laa faraanoo loolu laa yeewaale ba yàlla daf ma def résultat boo xam ne tey jii abi sifile deux penalty yi mais sama xel chaque jour bi may dem dañ ma ñaax mhm. ma fexe ba jàpp ñaari penalty yi jaraaf qualifié loolu moo ñëw sama bopp saa yi ma xëyee mooy victoire bi ma gën a neex sama carrière football. Mhm. dinañ ñëwaat ci série de penalty bi nga xamante amoon na euh, diggante Tëngéej FC ak euh, Raja mais bu tey jii bu ñuy dellusiwaat ci sa parcours gardien de but nga woon mais est-ce que poste boobu noonu nga mës a gardien laa mës a def góor yi mhm. bëri dañu jaar ci football mais gardien laa mës a def. Mhm. même petit camp koñ ba petit camp koñ ba sax dama naan may taxaw camp. gardien laa mës def moo tax xëy na tey yàlla may ma si lii quoi mosuma fooy football. lan moo tax nga choisir woon poste boobu. parce que dama toog toog ba si ma gis ay ñoom Cheikh Seck ay ñoom Antoine Bell genre góor yi ay ñoom Thomas Nkono. Mhm. bon surtout grand Cheikh ay ñoom Sara ay ñoom Samba Fall ay ñoom Cheikh Omar Sy ma ne pourquoi pas mu mën nekk gardien parce que gardien li ma si njëkk a dugal mooy sol ak seen équipement yooyu noonu. moo mhm. ma njëkkoon dugal ci gardien quoi ak autorité bi ñu bi gardien am ñu ñu may ko muy jàpp di def lu ko neex moo taxoon ma jël. poste gardien né li la war def parce que defe naa moo gën difficile ci poste yëpp. Mhm. voilà tay ba comparer le jamono bobu ak jamono euh, ni euh sen génération yeen championnat nim doon démé ak jamono bi championnat bi ni démé euh selon yow nak amna différence wala jamono bi li ñuy dund qualité euh jeu bi mo gëna meilleur. wa qualité jeu bi mo gëna meilleur mais championnat bu njëkk ba moo gën a parce que championnat bu njëkk ba équipe bi am ñoon stade yi comme stade yi terrain yi. ay terrain suuf la am stade bi jeune af ba ay terrain bat la woon rebond yi Assane Djigo nekkoon terrain kekk mhm. benn Assane lañ amoon muy Demba Diop gazon bi coxatiku mais léegi boo demee terrain yëpp fu ne am na tere terrain Njaareem stade Amadou Barry Assane Djigo terrain mbaaw bon mhm. léegi terrain xaw na bëri mhm. centre yi bëri football bi léegi gars yi ni ñu ko respecté nii respecté ñu ko noonu que bu njëkk ba da nga doon passe dem ba école Mérine di dem di rang ay jaraaf ñu la jox ay passe deux cent doo am salaire mais léegi football bi nek na championnat professionnel légui jour dañuy signé contrat am ay agent comme ni am ay centre de formation yo xamné tayji tey bon di nga si mën a jàng lu mhm. ñun am ñoon chance bobu maag sama copain bi Aliou Aliou Barra Barra mu nekkoon góorlu gendarme de Dakar. Mhm. am ñoon ku ñu encadré dañ ñoon tëjee tëjee rek ak suñu propre moyen ak suñu xam-xam mais légui boy am nañ ay entraîneur yu am xam-xam yu jégg day bi nek Sénégal ba nga xam ni par rapport ak football bi ak gardien bi boy dañuy progresser rapidement mhm. voilà. Euh, bu euh, weesoo loolu peut-être moi doon dernière question par rapport ak ou sa parcours lan moo le gën a metti ci sa parcours en tant que gardien de but. Je ma gën a metti sama parcours en tant que joueur. Mhm. ñaar la. Ben année jaraaf boo doon championnat dernière journée Le match nul ñambur gore def arrangement. arrangement maanaam Fule def arrangement ñu bàyyi kii gagné kii après ñu perd championnat Lolo 97 xaw ma 98 la jaraaf moo jouer joué ak Gorée. Mhm. ñaamba di joué ak benen équipe fële Louga boobu mo mu gën a mettre sama carrière en tant que joueur. comprendre ma arrangement non ça veut dire dañu doon championnat ba dernière journée. Mhm. ba dernière journée ñu perte benn un point. Mhm. loolu moom mu gëna a sama àdduna dañu waroon gagner 3 points. ñu am 1 point match nul jaraaf perte championnat bi. ñu coiffé leen au poteau. waaw d'accord benen bi mo gëna gën benen métti beneen bi nawetaan la won dama ñëw góol ba final régional jàpp deux pénalty yi arbitre bi bañ deux pénalty yëpp ñu buñ ñu éliminé. mooy amoo 456 ak Jokko bu Pikine.